Assalamualaikum mbokk yi tay nak soxna jaara la dalal mom nak poroxaan la jàngi alquran waye bimu fa jógee tamé jang na nasaran ba tay amna bagam mi ngi def formation waye ba tey fàttewul alquran soxna jaar li ma laaj moy ndaka nga def ba tiisa sa ba fàttewoo wok ba tay mokkal ko wér ci ak ndaw mhm. farlu ci ustaas ci amoon bi jangal hmm ak tamit bañ a bàyyi alquran bi ginnaw bi ma jógee ci daara ji da nga ci daara ma sha allah euh, noo doon bolé jang français bi ak nafar alquran ji noo doon yombul loolu nag mhm. yàlla <laughs> parce que ngay doog a ñëw école mhm. leçon yi tout nga war ko boole ak jàng alxuraan bi ba pare nafar bi di la xaar yëpp mhm. doon woon lu yomb waaye dañ doon nañ fexe ba li nga xam ne jëloon nañ ko si lim pour war ko jàng si journée bi ñu ko doon jéem mottali tamit ci jour bi mu doon soit heure bu ñuy dem école wala suñu nekkee école suñu posé heure bu ñu am rek bañ nekk ba suñu kaamil dañ ko doon dugal suñu saag rek heure mu xam ne foo ñu mën a fekk rek après dinañ ko mën a jàng incha allah lan moo la gën a marqué biir daaray Porokhane lu la ko gën a marqué. Porokhane moom li ma fa marqué wax dëgg yàlla bëri na trop. Mhm. waaye benn bi may wax ni yaakaar naa ne moom moo fa gën a marqué mhm. mooy taxam si Moustapha Bachir doon ñëw di ñëw seet si Porokhane. Mhm. nga xam ne dañ doon def ni man jaar yi dañ doon def cercle bu mag wër ko. mu nekk si oto bi mais daanul wàcc nag. léegi su ñëwee da doon waxtaan ak ñun te tamit yàlla taw féexale na ma ba nga xam ne saa yu daan ñëw Porokhane. daan nañ ma woo ma dem taxaw si kanamam tari mu ñaanal ma macha allah loolu moom moo ma fi gën a waat. macha allah euh, mokkal nga alxuraan loolu moom kenn du ko werante ndax bi nga mokkal alxuraan bëri am na effort yooyu defaat ci téere yàlla bi. waaw waaw am na effort yu ma siy defaat. Mhm. parce que ku nekk xam na ne jàng alxuraan moom yomb. Mhm. mokkal ko tamit jagleel. Mhm. waaye tamit terewul mokkal ko bëggul wax que ni. lépp xam nga lépp wala doo jóg si dara. alxuraan dafa bëri ay yu nuroo. bi fa jógee tamit pare doon naa def di toppaat runge yi nga xam ne am na yu nuroo ak yi di ko jéem a gën a maîtriser mm-hmm, mm-hmm. ci runge yooyu laay ñëw danaa la laaj ay runge insha allah li runge bi ma lay njëkk laaj mooy baada audu billahi mina sheytan rajim wama kaana jawaaba qawmihi lan ngay tontu وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ما شاء allah ngay kër sa kaatu rek lool ban sa la nekk آه، نمتي آه، سورة الأعراف سورة الأعراف ليه نك وقم وما وعليك فما كان جواب قومه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون دول خمسة سنين ف... دفعنا من سورة النملة أمنا بين البنية كان كبوت فما كان البنية كان كبوت هي كيف ستعطيك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فاجيب الله من النار ما شاء الله آه، ليك سمعني وليستعفف آه، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون كتاب الله ما شاء الله ليك نك أمنا بو خني فليستعففنا فليستعفف فليستعفف fal yastaghfir wa man mhm. kaana faqiiran falyakul bimaa <laughs> macha allah yàlla yàlla barkeel maa ngi lay ñaanal ni gën a jàppaat téere yàlla bi am naa xol bu sedd lool ci dalal la tey jërë ngeen jëf mbokk yi kon may leen ko ay kër soxna Diarra ngi noonu jërë ngeen jëf <laughs>